moment historique boobu la ñu toll. dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main. yeneen réew yi ko def gënuñu ñu. gënuñu ñu. wallaahi yéen laa ko la jeunesse. 2024 ñu soppi réew mi. 2024 changement commencé na faw. 2024. yor yor ñaaw ñaaw yor yor jóge jóge définitivement jog jag jog jag jaam bu mu jaam bi delloo si alal réew mi ci réew mi séddale ko ci séddale bu maane bu maane lenn la lenn la projet bi ñu boole ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex ñu koy door koy door ñu suñu woon fukki nit fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi ngeen koy gëm koy gëm ba tey mu tey nga xam ne ñun ñëpp xam nañu bu ñu demee gannaaw yàlla ñu tere jël réew réew dafay toll à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main. yeneen réew yi ko def gënuñu ñu. gënuñu ñu. wallaahi yéen laa doon la jeunesse. 2024 ñu soppi réew mi. 2024 changement commencé na faaw. 2024. yor yor ñaaw ñaaw yor yor yor jóge définitivement jog jam jog jam jaam bu mu jaam gi delloo si alal ci réew mi ci réew mi séddale ko séddale ko séddale bu maanu bu maanu lenn la lenn la projet bi ñu boole ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex bi koy door koy door woon woon fukki nit fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi ngeen koy gëm koy gëm ba tey muy tey muy nga xam ne ñun ñëpp xam nañu bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla kenn mënuñu tere jël réew mi yow mi bind woon ci liste yi pour voter ji xamal ni carte yi tàmbali nañ koo joxe fépp ci Sénégal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé bi ñu la joxoon nga dem ci sa préfecture walla sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte su dee sa récépissé dafa réer dangay dem police nga uti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi voté lu la war la te ngir voter da nga soxla sa carte électeur dawal jëli sa carte. yow mi bind woon ci liste yi pour voter ji xamal ni carte yi tàmbali nañ koo joxe fépp ci senegal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé bi ñu la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte. su dee sa récépissé dafa réer dangay dem police nga wuti certificat de perte. ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi voté lu la war la te ngir vote danga soxla sa carte électeur dawal jëli sa carte yow mi bind woon ci liste yi pour vote ji xamal ni carte yi tàmbali nañ koo joxe fépp ci senegal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé bi ñu la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte su dee sa récépissé dafa réer da ngay dem police nga uti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi voté lu la war la te ngir voté danga nga soxla sa carte électeur dawal jëli sa carte. yow mi bind woon ci liste yi pour voté ji xamal ni carte yi tàmbali nañ koo joxe fépp ci Sénégal nooy def pour jot sa carte. jëlal récépissé bi ñu la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte su dee sa récépissé dafa réer dangay dem police nga wuti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi vote lu la war la te ngir voté danga soxla sa carte électeur dawal jëli sa carte yow mi bind woon ci liste yi pour voté ji xamal ni carte yi tàmbali nañ koo joxe fépp ci Sénégal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé bi ñu la joxoon nga dem ci sa préfecture walla sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte su dee sa récépissé dafa réer dangay dem police nga wuti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi voté lu la war la te ngir voté danga soxla sa carte électeur dawal jëli sa carte yow mi bind woon ci liste yi pour voter ji xamal ni carte yi tàmbali nañ ko joxe fépp ci senegal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé biñ la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte su dee sa récépissé dafa réer dangay dem police nga uti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi

gérer sax avenir doomi ci sët la kooku jaamu yàlla mënu ko waral. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi fas yéene si ak yéen ci ñaareelu vidéo bi moom nag ñaareelu vidéo la waaye def nañ ci ñeent yu bokkul euh, benn bu ñu def ko ci benn jëm bu dee situation bi laaj na ko bu dee gàllankoor nañ sama candidature. kañuy fa ki ñu war a tànn ci candidat génnu ci ñeent yooyu waxoon nañ leen ci vidéo bu njëkk bi lan mooy stratégie bi ak naka lañ ko fas yéene doxalee buñ ci tollee bu ngeen dégloo vidéo bi di ngeen doxi fekk lañu xalaatoon am na mooy ñoom seen plan bi ñu laloon te plan bi jubluwuñ ci dul liquider Ousmane Sonko liquider Pastef fexe ba candidature Ousmane Sonko du musa am fexe ba li ko war a téye muy Pastef dootu fi nekk waaye fexe ba kenn koo xam ne bokk nga ci Pastef wala jege nga Pastef doo nekk candidat ma waxoon leen fan lañu bëggoon a jaar ba loolu ñu lal ñoom ñu lalli ko loolu waxoon naa leen ko ci premier vidéo bi kon vidéo bi bu ngeen ko dégloo rek mooy laa ñu dégg ne fa la bëgg a jëm te ñaan yàlla mu waña mu jëna am war a tax nag ñu defarwaat suñu stratégie vidéo bi ma lay fas yéene ci waxtaan ak yéen ci tànneef waxoon naa leen ni danañu fexe ba jàllale lu ëpp benn candidat man mii sax sama candidature bu jàllee du teet nañu fexe ba jàllale yeneen candidature dinañu fexe ba déposer yeneen candidature fexe ba ci candidature moo am yu bu gannaaw loolu nag dañ dellu si tànn tànn gi Fatma fàttali li ma waxoon mooy tànneef gi ñaar la imma ma tànn proposé kenn ne kii mooy candidat bi ñeneen ñëpp daa bàyyi seen candidature ñëw jàpp ci gannaaw ñu dem ci élection yi gañu ko ci kàttanu yàlla wala bokk ma tànn kenn ne kii mooy candidat bi waaye bu fekkee bu doon fekk na ci jamono jooju yàlla jàllale lu ëpp benn ci suñuy candidature ñeneen ñi ma bañ leen wax ñu bàyyi seen candidature dañuy maintenir seen candidature mais day doon candidature boo xam ne day dooleel candidature principale bi ci ban anam mooy ñun ñëpp dañuy bokk benn programme muy programme bi nga xam ne moom la ñu tënk liggéey ci depuis ay ati ati at présenté woon ko Sénégalais yi deux mille dix neuf gën koo toggaat nag defaraat ko muy programme Sonko président ñu bokk ñaareel bi mooy ñu gën a yaatal suñuy temps bu ñu waroon am benn temps ñu mun ci am temps ñu bëri yoo xam ne benn bu nekk nag programme bi ñu bokk ñun muy programme commun bi candidat bi ci lay benn poñ kook Sénégal yi ba Sénégal xam xam la ñu bëgg a jëm ak ñoom mooy am solo ñetteel bi mooy ñu mutualiser ci suñu campagne mooy ñu fexe ba candidat yi ak nu munti toll ñu dajale leen def benn taxañ ba campagne bi yomb ci kenn ku ne ci ñoom moo xam dañuy def benn caravane national unique bokk ko wala bokk ko ci lu ëpp su dee campagne vingt jour la nu mu tuuti tuuti ñu am quinze jours yoo xam ne wala dix jours yoo xam ne ñoo koy bokk benn caravane national ñu dajale suñu doole ndax campagne dafa métti dafa laaj xaalis bu bari laaj ay moyens laaj ay oto laaj sécurité laaj dund du lu yomb waaye bu ñëpp dajee day gën a yomb. te Sénégal yi dinañ xam ne ñii bokk projet muy beneen affaire boo xam ne lu am solo lay doon ñaari possibilité yooyu moo am waaye dinaa ñëw ci lan laa tànn ci ñaari possibilité yooyu wala balaa may dem ci loolu dama leen di wax lan laa tànn ci ki nga xam ne war a doon candidat bi incarné le projet tànn yombul tànn éliminé la xaw ma nag ñaata. candidat la ñuy am tollaguñ ci waaye buñ ci tole am naa yaqin ni war nañu mun a jàllale benn candidat buñ leen jàllalee ci candidat yi jàll bu dee candidat Bassirou Diomaye Faye jàll na moom mooy doon sama choix man mu doon candidat principal bi xam ne mooy porté projet bi mu doon candidat bi xam ci moom laa woo Sénégalais yi ne leen woteel leen Bassirou Diomaye Faye mu doon candidat boo xam ne moom la teg lox projet bi ci loxoom mu incarné ko en tant que candidat xam ngeen parce que projet collectif la waaye élection présidentielle dañ naan c'est le rendez-vous d'un homme le peuple moo tax collectif bi day jàppale góor nit kooku ñu tànn moo xam góor moo xam jigéen la kooku nag ci sama tànneef day méngoo a Basiru Joomaay Fay tànn gi ma tànn Basiru nag defe naa du bett kenn mënoon na doon kenn ku nekk ci ñen ñeneen ñett ñi nga xam ne préparé naa leen wàllu ay vidéo ne mën na doon kenn ci ñoom di ko xaar nag ba ñu egg ci jamono jooju la fay xew ci diggante fii ma toll ni ci mois de juillet deux mille vingt trois di wax ak ak ba ñuy toll ci loolu muy mois de janvier te xam ngeen ni liste ba nu mu gën saa gën saa gudd le euh, euh, le le le le vingt janvier la ko conseil constitutionnel di génne diggante fii ñu toll nii juillet ba vingt janvier nu tuuti tuuti juróom-benn weer la lu ne na fekk bu dee du man de Ousmane Sonko mooy doon candidat bi ma ne ñeenti vidéo yi nga xam ne defar naa ko mën na doon kenn ko ne ci ñoom waaye ci bii vidéo ma biral leen ni Bassirou Diomaye Faye la tànn muy tànneef goo xam ne dama wax léegi ni du bett kenn ci Sénégal yi du bett kenn ci waa bitim réew sax ñeneen ñëpp mënoon na doon ñoom mérité nañ ko am nañu sama confiance dama toog xalaat ci ay critères critère bu njëkk mooy candidat bi lan mooy profilam lan mooy a euh, meloom ci li nga xam ne wàllu xam-xam la ñu koy profil intellectuel ci li nga xam ne wàllu formation la ci li nga xam ne wàllu jaar-jaar la ndax dama leen yàgg wax ni un homme politique dañ koy natt ci discours am waaye dañ koy natt surtout ci parcours mooy politique du wax kese politicien boo jël mu ne la maa fi gën a baax maa fi gën a jub maa fi gën a set maa fi gën a bëgg réew mi est-ce que ci jaar-jaaram bu ñu xooloon jaar-jaaram méngoo nag loolu loolu tam sénégalais bu ne war na ci di bàyyi xel ndax. njuumte yu dal yëpp ci tànneef li ko andi mooy dañuy topp rek waxu politicien bi waaye duñu xool jaar-jaar ñaareel bi nga xam ne moom moo moom lay jiital ci critère mooy expérience muy lu am solo expérience am na solo mooy nit ki jaar jaar lan la ko war a jox ci xam-xam ba ñu yaakaar ni war na am na jox réew mi ñetteel bi jiital mooy kamay tànn naka la méngoo li nga xam ne mooy infrastructure parti bi nga xam ne moo war a porter liggéey bi mooy parti wala élection machine bi appareil électoral bi élection koy porter mooy électorat bi ñiy dem wote nga xam ne ñëpp bokk ñi ci parti bi ñii bokk rek ci parti bi ñii sympathisant lañu rek mooy dañaa bëgg dañ laa bëgg rek ngir yàlla kon dañ laa bëgg ci yaakaar gi ñu am ci yow ne mën ngaa defar réew kon loolu dafa am solo ma xool tànn bi may tànn bi may tànn naka ba ci ban degré lay méngoog loolu parce que boo tànnee mën nga tànn koo xam ne profilam baax na lool waaye bu dee boo ko tànnee lenn ci infrastructure bi na ci base bi nga xam ne ñoom ñooy dem ci lu ëpp seize mille bureau de vote ci réew mi ñoom ñoo war a toog ñoom ñooy dem dugg di def porte à porte kër ak kër di def campagne dugg ci marché yi ñoom ñooy mobiliser électeurs wala lenn ci sympathisants yi nga xam ne doonte bokkuñu ci parti bi am nañu yéene voté pour yéen bu dee boo tànnee ko jëmm jooju doonte profilam baax na lool ci wàllu intellectuel ci wàllu diplôme ci wàllu loxo yu set waaye bu dee boo ko tànn tànnee mën na andi Euh, euh, friction mun na tax ñenn ci ñi war yenu liggéey bi ne gisuñu suñu bopp wala ñu gedd ba dem bu boobaa it tànn ndax loolu dafa am solo moo tax am na yeneen anam yuñ doon nekk tànneef bi len koy delloo Sénégal yi delloo ko militant yi ko base bi delloo ko Sénégal yi électeurs yi laaj leen ban lan ngeen ci xalaat waaye damay njort ni temps bi ak situation bi du ko maye. ñett yooyu dafa am sol ñeenteel bi nag mooy keñey tànn naka la mel ci projet bi naka la mel ci projet bi bu ma jëlee ñeenti critères yooyu dinaan wax ni choix bi ma def ci Bassirou Diomaye du choix wu choix de cœur choix de raison la mooy tànn ma ko ci cofeel wala ci mbëggeel wala ci parparlo waaye dama ko tànn ci xel ci xeltu ma xeltoo ba dajale gis ni profit bi ku ko jiital ma ànd ci puus ñeneen ñëpp ñëw jàpp victoire bi dina yomb lool naam Bassirou Diomaye sama rakk la ñëpp xam nañ ko Bassirou Diomaye duñu ñaar benn lañu mag moom muy koo xam ne jamono jii ñu toll ma toog sama kër nii ñu bari moom bu nekk prison Cap Manuel la ko yóbbu prison Cap Manuel cofeel gi mu am ci man ba mënul téye boppam moo ko andi ndax keroog bu ñu nekk euh, convoqué nañ ma ci tribunal wala xamu ban xew-xew moo amoon biñ ma ne convoqué nañ ma ci tribunal ci la Basiru mer ba bind texam ne magistrat dañuy jaamu Macky Sall loolu rek moo tax ñu yóbbu ko prison Macky magistrat yi dañoo dañoo toroxal seen bopp ci kanam Macky Sall na ma yi boobu loolu moo taxoon ñu jàpp ko yàggu ma xamanteeg moom impôt yi damay nañu boole gën saa gudd su ma juumul 2007 wala 2008 lañu lañu lañu lañu njëkk a gisee kon yarawuñu màggandoowuñu waaye yàlla mooy def lool cofeel googu yóbbu ko ba yàlla wërsëg na ko wërsëg na doom mu tuddee ma ko man mii te loolu suma juumul 2016 la woon bañ may tàkk ci fonction publique dañ ma tàkk ñu teg ci ñetti euh, semaine wala ñaari semaine yàlla wërsëg na ko doom mu tuddee ko ma ko kooku kenn mënul lam-lamee sama digganteeg moom ci wàllu coppeel wàllu mbokk sama rakk la sama xarit la noonee pat Basiru mel ak man noonu la ñeneen ñëpp mel ci man Biram Souley noonu la ñu mel El Malick la ñu mel Abbas Fall noonu la ñu mel Maymuna Gueye noonu la ñu mel et cetera parce ay frère lañu ay sœur lañu militant yi ma bëgg ba mu jaral leen lu ne te man xaw ma leen te mosuma leen gis ñoo ëpp sax milit ñi nga xam ne xam naa leen te ñu jege ma loolu mooy Pastef nous sommes des frères et des sœurs yàlla def nag Basiru yegg ci foo xam ne sama diggante moom du loo xam ne dañ koy laam-laami ba mu dugg ba ci suñuy famille jaxasoo waaye ànd ak loolu yëpp nag Basiru tànnuma ko ngir loolu de tànnuma ko ngir suñu amitié tànnuma ko ngir li li nga xam ne dox na suñu diggante déedéet man duma politiquer noonu dama leen musa wax ni la jëm ci réew mi aw ma ci sentiment aw ma ci rakk aw ma ci mag aw ma ci baay aw ma ci doom intérêt Sénégal bu ngeen di fàttaliku élection présidentielle deux mille dix neuf bi ma demee ba Bignona nga xam ne falaa cosaanu muy département boo xam ne sama dëkku baay falane dama wax ak ñoom ne leen bu leen ma wooteel mukk parce que seen doom la bu leen ma wooteel mukk parce que seen mbokk la. bu leen waxut leen mukk parce que ñoo bokk xeet wala ñoo bokk gox déedéet su ngeen may woteel da ngeen may wotel parce que jàpp ngeen li ma leen woon ci xam-xam ak ci jikko ak ci bëgg réew mi war naa justifier ngeen woteel ma moo tax duma tànn ci yaa ma neex dama tànn Basiru ci critères yi ma wax ma jiital léegi mooy bu ci njëkk mooy lan mooy profilu Basiru Diomaye ku ñu ne jàng na sans faute ba am maîtrise def concours école bi ñu ne moo gën a kawe ci administration sénégalaise muy ENAM réussir ko dem def sa formation génn nekk inspecteur des impôts liggéey fa liggéey bu mucc pay ko ba nekk tey inspecteur principal am ay jaar-jaar yoo xam ne kenn du ko werante ci biir impôt te liggéey ci biir impôt lu mat léegi pratiquement vingt ans te kenn mënul taxaw ne Bassirou Diomaye mus naa jël dërëmu jàmbur wala mus naa jël terrain jàmbur dama ko yàgg wax ci sama bopp noonu ma ko waxee ci sama bopp laa ko mën a waate ci Bassirou Diomaye Faye gëm ni moom a gën a jug man kon kooku su dee ci wàllu déontologie mooy loxo yu set féete na boor sudee ci wàllu xam-xam féete na boor ndax ba ñuy formé ñi war a état fa la ñu formé Bassirou Diomaye Faye te mu liggéey nag en tant que haut fonctionnaire ci état boobu léegi di xale boo xam ni ku ko xam rek intelligence am nga ko nawee Bassirou est un homme extrêmement brillant macha allah te bi muy nekk école primaire ba léegi seede boobu lañ ko seedeel mu ànd ceeg tey ak dal nag waxam moo bariwut li xalaat moo ëpp li muy wax bu xalaatee ba pare li muy jëf moo ëpp li muy wax kooku mooy Bassirou Diomaye Faye am na yar am na teggin dal na Bassirou Diomaye Faye ci projet bi depuis le ñi ma ñëw woo ne ma dañoo bëgg a taxawal parti te il nga ñëw buñ ma woowee ba pare damaa woo Basirou Diomaye Faye woo Birame Souleye Diop woo Aïcha Touré woo euh, euh, nu mu turee ci euh, comment s'appelle encore Jamil Sané Matar Sène moom moom bokk na ci ñi ma jël si man ñoom ñoo sumb parti bi dëgg-dëgg. ma woo ñële ñu ñëw ne ma su dee yow dinañu dinañu bokk ndax fas yéene ñu woon def politique ci suñu dund bës boobu ba keroog bi ñuy def assemblée général ba taxawal parti bi Bassirou Diomaye mi ngi ci projet bi ñu dénk ko fi mouvement des cadres ba programme bi may wax Bassirou Diomaye moo moo coordonné bi ñuy bind programme bi programme bi ñuy wax moo ko bind ànd ak cadre parti bi ñu dénk ko fi bi mu boole ko cumulé ko ak mouvement des cadres boo laajee waa diaspora kuy Bassirou Diomaye Faye dara nga ko wax it ba fan yële passé wala ay weer ci gannaaw ñu gis ni parti bi jar naa defaraat jar ma jël li nga xam mooy xoolu parti bi li nga xam ne mooy coordonner activité parti bi moo téye parti bi ndax Pastef ni mu bindoo man dama leen ne ba ñuy def parti bi dama leen ne man du ma doon président boo xam ne day téye parti di gérer section yi di gérer coordination yi man bëgguma lool kon nañu ut loo xam ne mooy gérer lool poste secrétaire général Pastef kooku moo xam parti bi moo yor parti bi mooy coordonner ak département yi mooy coordonner ak commune ma coordonné ak may yi les femmes les les jeunes les cadres les enseignants magi Pastef euh, euh, nitu daara yi mooy coordonné avec les les démembrements la diaspora kon kooku xam na parti bi parti bi xam na ko it mu day ma ma jël loolu teg ci loxo kon su dee par rapport ak projet bi muy deuxième critère bi Basirou matale na ko ba mu mat sëkk. ñetteel bi mooy par rapport ak expérience ndax bu ñuy wax expérience da ngay dégg ni ñi naan la kii homme d'état bu mag la ndax nekkoon na fi ministre nekkoon na fi directeur général nekkoon na fi ministre d'état nekkoon na fi mais loolu ça ne veut rien dire état Trump musul nekk ministre musul nekk euh, euh, euh, premier ministre musul nekk secrétaire d'état keneen na keneen ak keneen président yu bari mosuñoo jaar foofu waaye expérience bi ñu gën a intéressé ñun mooy est-ce que xam nga état nu muy fonctionner loolu Bassirou Diomaye xam na ko ndax moom la jàng loolu rek la jàng est-ce que am nga xam-xam loolu kenn weranteetu ko yàgg ngeen toog di seetaan Bassirou Diomaye est-ce que say loxo seet na kenn weranteetu ko est-ce que tey buñ la newoon état ngi nii suba nga démarré peut-être minute bi sax mun naa wax Bassirou Diomaye dina démarré waaye li gën a neex mooy Pastef projet la Pastef du mbirum benn nit moo tax équipe la ñuy demee dañuy demee équipe kon ma jàpp ni expérience bi ñu soxla pour mun a yor réew Bassirou Diomaye yor na ko mat sëkk sëkk sëkk sëkk Senghor biñ koy jox réew mu musul woon yor réew. Abdoulaye Wade biñ koy jox réew ñaari yoon la dugg ci gouvernement def fa quelques weer naat waaye musul woon réew sooy xool président adduna bi néew na koo xam ne nekkoon nga ci appareil d'état bi c'est-à-dire en tant que ministre wala gouvernement bi demee ñu bëri musuñoo jaar foofu te ñi gën ci président yi nag mooy ñoo nga xam ne jotuñu leen formaté ci système bi ba yàq leen léeg li ci ëpp ñi gën ci président yi mooy ñooñ kon ay gis wax ji day bëri waaw diw am na expérience nit yàgg na ci gouvernement lan la fa am ci expérience randal alal réew mi complot jaay réew mi waa bitim réew ñun dañoo soxla lu bees lu yees lu ànd ak xam-xam ànd fit parce que réforme yi ñu war a def ci réew mi dafa laaj fit jëlaat suñu bopp moomaat suñu bokk dafa laaj fit waaye dafa laaj aussi xam-xam mais dafa laaj loxo set dafa laaj koo xam ne amul fenn fu la gaay mën a téye ba di la te loolu lépp daje na ci Basiru Jomaay muy lu ma leer lu may lam-lami kon critères yi ma daje yi ñu dajale yëpp boo ko dajale ci Basiru ñeenteelu critère muy bu mujjee mooy choix bi nu yomba expliquer ni mu gën a yomba rek la gëne choix bi nga xam ne jarul lay yu bari mooy choix bi gën bu dee da nga war a choisir ba pare war a expliquer lu bari war a convaincre ni ñi li tax ma tànn tànn bi li tax et cetera te nga xam ne dañuy dañuy jege élection ndax vidéo bi may def du génn lu dul liste définitive bi génn na ba pare la dox suñu diggante ak bi na gàtt gàttaay boo xam ne. boo ci buggee nekk di convaincre nit ñi wala nit ñi tasaaroo nga war leen dajalewaat di andi dina xaw metti te loolu gawma ma ni li nga xam ne mooy porte mbir mi ci infrastructure Pastef suñu ne tànn nañu Bassirou Diomaye dina jaar dina jaar ay lay ak ay wax yu bari waaye dama gëm sax ni li Sénégalais yépp nag nga xam ne tey ñépp bëgg changement ta te yaakaare ko jaarale ci ñun boo nee tànn naa Bassirou Diomaye dina ci am kenn koo xam ne dina ne incohérence am na ci du ci am kenn koo xam ne di nga obligé di ko expliquer pourquoi kon loolu yëpp daje na gëm naa ni su ma tànnee Basiru li nga xam ne moo porté li ñuy def nii ndax ku ñu àndal rek da ñëw jàpp ci liggéey bi yokk ci li nga andi waaye ñun ñëpp xam nañ te loolu yàlla ko tudd nee naa leen duñ suñu mérite lay base bi dëkk dëkk dëkk mooy Pastef ak infrastructure moo tax loolu il faut ma séntu ko ci choix bi naam te ñu ma tànn ne leen dem leen uti fiche na ci ñoo xam ne tey am nañu profil bu mucc ayib ci wàllu intellectuel ci wàllu jaar-jaar ci wàllu expérience ci wàllu léeg-léeg li du choix boo xam ne dama koo jël ci parparloo rek wala kii moo ma neex fañ jëm nag soobee yàlla dañ ci yegg am na ci loo xam ne waxtaan naa ci ak yenn ñi nga xam ne bëggoon naa ñu dem jëli fiche wax leen bu ñu demee ba étape bu nekk lan lay méngoon ba bu ñu demee ba yàlla may ñu gañe bu ba yàlla may ñu gañe am na loo xam ne du waxu mbedd du ma ko wax fii mais na ngeen xam ni lépp lu ñu organiser la ba pare di ngeen gis ci weer yi ñëw di ngeen xam ni lépp matuñu nag waaye pratiquement lépp organisé nañ ko ba pare lu nekk ñu teg ko ci temps moo tax su ma leen ne même gannaaw bu ñu gañee ba pare organisé nañ ko ba pare te bu soobee yàlla dina léppay baax ngeen war maa gëm kon tànneef bi loolu la may ñaan nag xaw ma yan candidat ñooy jàll de mais beneen candidat bu jàll maa ngi lay ñaan. nga nangu choix bi d'abord ba pare jëmmal ko jëmmal ko wax ak sénégalais yi won leen ni nangu nga choix bi ànd nga ci à cent pour cent te dëgg ci dem ba jeex parce que wax naan ko ci premier vidéo que du projet wu nit du projet wu mën a mën a mën a sudul man rek euh, ma xëpp ci suuf budul man rek mer na xam naa sax ñi ma tànn ñëpp nag ne ne ne nañu dem wuti dañu dem déposé xam naa ni kenn melu ci noonu waaye nag dañuy fàttalante rek ndax fàttali baax na te seytaane dafa gaaw dafa gaaw fëkk nit may fàttali rek man def naa sacrifice bu ne jël naa sama sama sama jëmm sacrifié ko sacrifié liggéey sacrifié sama liberté sacrifié sama famille sacrifié lépp bu dee nag sacrifié naa loolu yëpp teewul bu dee intérêt bi intérêt général ak intérêt Sénégal taxaw na ma man mun naa effacé wu pour ñeneen ñu dem kon waxu kenn kenn warul xalaate ne kenn amul droit xalaate ne may ñaan ñëpp nag ñu jëmbal lool waaye waxoon naa leen ci premier vidéo bi rek ni am na ay schéma yu taxaw ndax dama naan ñëpp nañu yeneen candidat yëpp nañu bàyyi. mu des benn candidat wala dañuy bàyyi yeneen candidat yi ñu jëmmal ñu jàppale candidat boobu Bassirou Diomaye jamono ji ñuy wax ni ma nga kap man yoon tëdd ndax bi fieeg boobu dinañ ko ba xawma ndax dañ ko bàyyi mu def campagne bu dee ma nga fa ci ba jamono jooju xawma ci yoon dañ ko war a bàyyi bu dee jamono ji egg nañ foofu te man tere nañ ma nekk candidat te moom ñu désigné ko dañ ko war a bàyyi o nom du, principe de l'égalité des candidats mooy état dafa war a tolloolee candidats yëpp d'autant que ni fi ñu tol nii amul dara lu ñu ko détention provisoire la jaay doole mandat de dépôt détention provisoire atte wuñu ko condamné wuñu kooku loo koy téye su ñu demee ba conseil constitutionnel ne kii mat na jiite réew mi war naa mën a nekk candidat kooku état amatul droit jàpp ko dañ ko war a bàyyi mu dem campagne waaye li ma doon wax mooy yeneen candidat yi la ma bëgg ci ñoom la may proposé bo pour le reste nit ñi nag mun nañu daje waxtaan xool ndax bëgg nañ ko defee neneen waaye suma ma yeneen candidat yi bu dee ñeent c'est-à-dire bu dee li am ci candidat yëpp matul cinq bu dee soo génnee Basir mi ma tànn yeneen ñi matuñu ñeent dama ñaan li ma jàpp man mooy dañu war a maintenir seen candidature ndax day gën a day yokk rek suñu capacité communication waaye na Sénégal yëpp xam ni bu wat ba jotee benn Bassirou Diomaye lañu war a waxtaan ñeneen ñi nañu maintenir seen candidature mu gën ñoo yokkal temps de communication gën ñoo yokkal temps d'antenne ca lay jàll RTS waaye gën a diversifier également euh, possibilité ñu am ndax bu dee ci candidat yooyu ma tànn kii Cees la dëkk kii dëkk Malikounda kii dëkk Linguère ki dëkk Daara Jolof ka ca des dëkk euh, nu mu tudd ci Ziguinchor kii dëkk et cetera mun nañu bokk def campagne def benn caravane nga xam ne dañuy dañuy maximiser suñuy moyens ku nekk sa temps d'antenne bu jotee nga wax sa cinq minutes wala sa dix minutes xaw ma temps lay doon. caravane boobu mun na sillonner le Sénégal ensemble mais mun na am fu ñuy toll kenn ku nekk ne léegi maa ngi jël telle direction wala maa ngi dellu fu ma dëkk moo xam cinq derniers jours yi wala sept derniers jours maa ngi dem ci zone bi mokkal foofu mu gën a mokk waaye lépp campagne bi weesu ñu def ko ci cadre programme commun bi ñu yor muy programme Sonko 2024 loolu sama gis-gis la waaye loolu ubbi naa ko. ba coalition bi mun na toog waxtaan waaye candidat yi it ñoom ñëpp ñu xool seen bopp ku nekk xool li bëgg ku jàpp ni lool mun na cee dugg wasalaam ku jàpp ni moom dafa bëgg a bàyyi candidature am waaye day ñëw rag ci gannaaw joomaay malgré tout def na waaye sama xalaat rek laa joxe boobu ubbi naa ko naa ko bàyyi leen ngeen cee waxtaan. tànn naa nag joomaay fay xam na ñiñ ko seqal ñu ñu. ci mën a wax lu dul dëkk ci soxor ci mën a sos seen dund yëpp sos la dinañu fay ay nit def nañ ko ci Ousmane Sonko ay ati ati at te teewul loolu dafay yokk dayo Ousmane Sonko ci askan bu ñu demee ba xam ni nag seen pexe sotti na ba tere nañu Ousmane Sonko nekk candidat keneen ku Ousmane Sonko tànn di ngeen déglu ne ci moom bu bon la tosofat la terroriste la salafiste la bëggul sëriñ si fa mu dëkk sax kenn du ko fa xool nangam du ne di ngeen ko dégg waaye seen mënin la jikko ngeen baal ma ci kàddu gi jikko naafeq la ndax booy xool ci alquran li ñuy wax ci jikko naafeq loolu bokk na ci loolu mooy seen jikko loolu rek lañu fa sos wax lu bon fay ay nit ñu bind fay ay nit ñu dem ci tele di wax waaye Sénégal yeewu nañu yeewu goo xam ne looy gën a yokk ci nit rek Sénégal yi di ko gën a yëkkati ñoom ñooñu ñëpp wala leen dajale ko man maa ko teg leen ci benn balance jël Basirou Diomaye teg ci beneen bi Basirou Diomaye mooy wàcc ñoom ñu kon dama bugg a Sénégal yi nii proposé wut ma leen koo xam ne mën nañ ko sik ci dara sénégalais cent cinquante pour cent la xam réew mi bëgg réew mi di ko juba ko juba jub ku jàng ba xam li mu war a xam yépp liggéeyal état bi dugal fi ay milliards yi milliards te mu see jël dërëm suul jël terrain wu jàmbur kookee laa leen dénk mooy suñu candidat te bu soobee yàlla keroog le vingt cinq février mooy gagné élection bi dès le premier tour gañeel ñu ko si suñu tour ñun ñëpp incha ci gannaaw bu ñu defee li war a def ñun ñëpp mooy takk suñu digg may dellu nag di lancer un appel à tous les sénégalais de tout bord projet bi seen projet la de Pastef amul frontière nit mun na toog xalaat ni ah ñii de est-ce que su ma demee duñ ma dàq est-ce que suma demee am naa place ci projet bi wala maa ngi faroon ci ci fii wala maa ngi faroon est-ce que su demee dinañ duñ jàpp jàpp ni méngoowuma ak ñoom déedéet parce que ànd na ku nekk fii taral na loxoom ñëpp lenn rek lañu laaj kenn ku nekk boo ñëwee nangul règle mooy ñu ñëpp dañoo war a ànd suppi li lii fi xew mënul wéy randal alalu réew mi détourné ay milliards dugal sa poche ak sa njaboot wala yóbbu ci ay banque denc jamono jooju jeune jeune yaa ngi bëgg a dee dem signé contrat bu la neex ñu jël alalu réew mi yëpp tubaab bi génn yóbbu ñun ñu toog fii di di sukuraat te ku bëgg a gém seen réew ñu ne doo fa dem tënku ñu tënku boo xam ne suñu koom seen loxo la nekk suñu koom seen loxo la nekk suñu koppar sax seen loxo la nekk ñun moomuñu fi dara loolu la ñu bëgg mu jeex. ku ànd ci loolu boo ñëwee ànd ci fas yéene ñu ànd liggéey ci loolu am nga sa place ci projet bi kon maa ngi tendre sama maa ngi maa ngi tàllal sama loxo ñëpp bu ñu topp buñ ci eggee candidat bu ñu recalé da nga nekkoon ci candidat opposition bi tàllal nañ la suñu loxo di la nga ñëw dugg ci projet bi bulul ay condition yooyu teg jaru ko du marchandage réew mi lañ jiital waaye bu ñu yàlla joxee réew mi kenn ku nekk ca na nga toll ak la nga war a mën a yor dañ la dénk nga liggéey waaye nga liggéey ngir yàlla rek ak liggéey ngir yërëm askan wi la nga ca war a am ci payoor di nga ko am te yem ca ba ca yokk dara la nga ca war a am ci payoor da nga ko am te bañ cee yokk dara loolu lañu woo Sénégal yëpp amuñu ci barrière am ci frontière intellectuel yi engagement dafa jot de réew mi ko laaj Sénégal yi ndax dañoo am intellectuel yoo xam ne macha allah tubarfakal te engagé nañu ci seen façon ndax lu xew ci réew mi dinañ joxe seen xalaat waaye dafa jot deux mille vingt quatre bi tournant la boo xam ne waruñu ko rate dafa jot ngeen gën a sóobu waa diaspora moom chapeau. yéen moom su ñëpp meloon leen heure bi kenn waxatuñ du ma leen wax dara les acteur politiques la société civile ñëpp ñu ngi leen tàllal suñu loxo les mouvements citoyens ASC yi sax xewuñu deux mille vingt quatre dafa waroo doon loo xam ne sénégalais ñooy wane seen bopp woon àdduna bi yëpp nag nous sommes peuple fier te xam nañ ñu bëgg xam nañ fi ñu bëgg a jëm te deux mille vingt quatre mooy doon suñu vraie indépendance le vingt cinq février deux mille vingt quatre ci la suñu vraie indépendance yi démarré kon buñ ko raté ñu ngi leen di di leen sant di leen jaajëfal di ñaan yàlla mu yokk sutura ci réew mi yokk jàmm ci réew di ñaan yàlla vidéo bi ah yàlla bu buñ ko musa teg ba ngeen war ko déglu ndax buñ ko tegee rek mooy lañ ma yéegaloon ne ñoom ña nga ca loolu loolu am na waaye bu amee du duñu wàññi dara ndax ñun yàlla rek lañu gëm te réew mi rek lañu bëgg kon yàlla ñu yàlla jàppale jàppale leen def jàmm ci réew def ci progrès ak prospérité waaye yàlla du soppi ci mu réew du waa réew mi mën a soppi ci seen bopp alquran moo ko wax yàlla mànd na mànd boo xam ne laa yu xayyiru laa yu xayyiru du sopp ci mu réew loo xam ne waa réew ci boppam ñoom waroon nañ ko mën a soppil seen bopp bu ñu wanul yàlla ni bëgg nañ rek yàlla seetaan ñu dañ koy won ni bëgg nañu waaye jëf nañu sax bu ñu jëfee nag ba mbir mi sës ba ne mata nasrullah yàlla day ala inna nasrullahi qarib buñ demee ba mënatuñu ba ne kañ la yàlla di di ñu wàllu yàlla doog ñu feeñu rek mais tant defoo yàlla da lay seetaan jëf nag dafa jot Sénégal te jëf jooju ñu ngi a mandargal le vingt cinq février bu soobee yàlla dafa am yow mi bind woon ci list yi pour voter ji xamal ni carte yi tàmbali nañ koo joxe fépp ci Sénégal nooy def pour jot sa carte jëlal récépissé bi la joxoon nga dem ci sa préfecture wala sa sous-préfecture ñoom ñooy joxe carte yi nga jëli sa carte. su dee sa récépissé dafa réer da ngay dem police nga uti certificat de perte ak certificat de perte boobu noonu nga dem jëli sa carte yow mi doomu réew mi vote lu la war la te ngir voté da nga soxla sa carte électeur